أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi eggali aaya yi ñu doon jël démb muy aaya 77 78 79 ñetti aaya yi borom bi subhaanahu wa taala mu ngi ci xamal sunu bopp di nu dellu si te mooy wax nanu ne moom borom bi aynama takunu yudrikumul mawt wallahi aaya bi wala aaya yi day jàjj day xuppaate day soññ ab jaam ab jaam boo xam ne xam na ne moom jaam la yàlla moo ko bind indi ko ci àdduna pour mu jaamu ko aaya yi mooy aaya yi nga xam ne dañuy jeexal bànneexu nit loo noos noos loo lekk loo naan loo sol foo tëdd loo war soo xamee ne da ngay dee rek noos bi day yàqu dee mooy jeexal bànneex moo tax yeneen di tuddee ko haazimi lazat mooy jeexal bànneex lu waay nekk rek bu dee noos boo nekk lu mu xumu xumu bu dee ñëwee rek nga daal di génn ci loolu daal di dee ndeysaan bànneex gi daal di jeex kon dee ngi noonu di wane kàttanu yàlla ak dooleem ak sañ-sañam ak mën-mënam bu mu teg sunu kaw te kenn ci ñun mënu koo teggeeku benn borom xam-xam day wax ne américains yi li ñuy kannasu kannasu anglais yi li ñuy réew français yi li ñuy dof seen parlement yi doo dégg ñu woote ne dañuy supprimer dee dañuy woote assemblée nationale ñëpp ñëw lu xew ñu ne dañuy éliminer dee ci parlement yi ban parlement ngeen ko dégg ah fan ngeen gis ci dëkk yi dëkk boo xam ne dañ faa éliminer dee ñëppay dee su la neexee su la naqaree soo bëggee soo bañee innahul mawt foo dee ñëw laa yarhamu saxiir wala yaxtarimu kabir wala yuwaqiru al aalim wala yaxaafu al jabbaar dee ngi noonu yërëmul liir dee bu ñëwee liir liir biy génn ci yaayam mi ngi judd mi ngi tooy xepp dee faalewu ko du ko yërëm bu jaaree yóbbaale ko dee respecté wul borom xam-xam kii de eh macha allah oh dee bu ñëwee da ngay dee dee faalewul boy disco faalewul gànd kuy ngànd ngànd di bonde naan nii ana ki dàqoon karaté ci àddina bi nu mu tudd Bruce Lee noonu la tudd bi malakal moo di wàccee ci moom tax karatéwul waxu ko maa fi mën ceinture noire la nangam dan la allahu akbar dee ngoog de kenn ci ñu mënu koo rëcc loolu la yàlla di wax munoo daw daw daw daw ba dab malakal mawti ba rëcc ko ba réer ko ba làqatu ko amoo fooy dugg amoo fooy nekk amoo koo àndal ndeysaan léeg-léeg nga dégg maire yi ne i maay de kay ina xer sa gite gite yumma maay de ina xer sa gite yumma kono hattaya de mayat tan dee dee dafa rus bëtu yaay ñu ne boo buggee dee sa yaay toog sa wet foog nga ne yaay may ma ndox yaay jëndal ma pom yaay demal defal ma li bu sa yaay génnee rek nga dee ñu ne dafa rus bëti yaay ndeysaan ndax yaay dafa jege doom dañ may woon démb benn barkaati démb xaw ma barkaata di benn picc ci benn image Facebook picc bi dafa am doom muus mi ñëw bëgg a lekk doom yi picc bi di xeex ak muus yi ba mujj gi muus mi jàpp ko moom yaay ji ndax lan parce que doon défendre ay doomam démb yaa amoon benn phase benn kan ma amoon démb yaa amoon dem benn benn xale buy jóge ci étage xaw ma étage buy lakk benn yaay di sauver doomam ci immeuble bi lakk ba mujj gi moom daal di dee moom yaay ji maanaam yaay ni muy sonne ci nit xoolal tey ñun li ñu gën a li ñu gën a alak mooy sunuy yaay ñun tey li ñu gën a toroxal mooy sunuy yaay tey laa mujj seetaan benn cheikh tey balaa may dem jumaa tey cheikh bi di nettali benn xale benn directeur Arabie Saoudite bu jigéen buy nettali benn xale bu góor bu tudd Muhammad bu am yaay joo xam ne yaay ji dafa dof yaay joo xam ne xamul moo jur doom ji maanaam yaay ji dafa dof judduwaale ko ñu may ko jëkkër mu am ci doom doom jooju ni yaay ji mel yaay ji nga xam ne dof na ba xamul ne am na doom terewul doom ji mooy sang yaay jooju moo koy solal moo koy jox mu lekk moo koy jox mu naan su guddi jotee day takk tànkam takk tànk yaay ji balaa yaay ji dem bu yeewoo du ko gis docteur bu jigéen boobu mooy nettali nee na dafa jékki-jékki xale bi indil ko yaay jooju ni mu gis mère bi ni muy def xale bi mu ne ko yow loo bokk ak kii mu ne ko sama yaay la mais mu ne ko sa yaay la te xamu la mu ne waaw mu ne noo def ba mu jur la mu ne sama maam moo ko mayoon sama pap moo mayoon moo ko mayoon sama pap bi mu ëmbee ci premier mois yi sama papa xam ne kii wérul daal di koy fase ndekki jëlee la ci ëmb mu nekk man ma judd fekk kii mooy sama yaay mu ne ci moom laa bëgg amee aljanna fi muy wax ak moom noonu mère boobu nga xam ne ne ne xale bi bi mu déggee nodd mu ne xale bi kañ nga ma yóbbu màkk kañ nga ma yóbbu ma umra docteur bi ne ko waaw yow lan la wax mu ne ko dafa bëgg a dem umra mu ne kon da yow da nga koy yóbbu umra nii jamono ju nekk mu ne waaw waaw ne ko yaay bàyyil ba alxamis ma yóbbu la umra ah mbokk yi kooku yaay ju feebar la am de kooku yaay ju wérul la am ñun yan yaay lañ am yan sentiment envers sunu yaay yan taxawaay yan melokaan yonent bi alayhi salaatu salaam wax naa ko léegi xutba juma ñetti ñi mu ñaaloon alkande ci min baram weeru koor mu ne ñii jibril moo doon ñaan yonent bi naan amin jibril di ñaan yonent bi naan amin jibril ñaan yonent bi naan amin ñett nit ki njëkk mooy ki fekke weeru koor te woorul fexewul yàlla baal ko kooku yàlla na alku yonent bi na amin ñaareel mooy ku fekke sa ndey ak sa baay di dund amoo ci ñoom ñaar aljanna yàlla nga alku yonent bi na amin ñun ñi genn wàll gi ñëpp suñu ndey ak suñuy baay ñu ngi dund waaye xoolal ndeysaan am na ci ñoo xam ne bu leen seen yaay santee ñu bañ bu leen seen baay santee ñu bañ bu ñu génnee su leen keneen santee ñu def ko bal sax waxuma la seen ndey ak seen baay sant leen waaye dañuy gedd ñooñu quoi dañuy gedd ñooñu ñu may nettali benn xale bu góor boo xam ne dafa bàyyi julli bàyyi woor dem nekki leneen papa ji mere ko génne ko kër gi ñooñu génne ko ci julli génne ko ci woor dugal ko ca la ñu nekk yëg ne papa mere na ko génne na ko kër ga ñu woolu papa ji ñu leen di wax sori wut de fii la fii ñaari boulangerie ñu woolu xale bu góor bi mu ñëw ñu woolu papa ji papa ji ñëw toog sëriñ bi ne ko dégg naa da ngaa génne diw mu ne waaw lu tax mu ne ko ndax daa bàyyi julli man damay julli ñu ne non dañoo bëgg nga jubóog moom mu ne leen rek mooy tax ma jubóog moom mu julli su jullee ñu juboo bu julliwul na dem ma dem ba léegi nii xale boobu delluwul foofu parce que gëmul julli génne nañ ko ci julli léegi-léegi bi ñuy ñëw paas bi paas biñ ma woon bi ma woon waa ji lan la wax man ma dem sàngam moo ma gënal ma dem màkk ma dem ci jumaay diw jee waxtu benn tur jumaay diw ma dem foofu moo ma gënal ma dem màkk xoolal bu ñu jàppee jullit yi di leen def noonu di génn ci ñoom pas-pas aqida di génn ci ñoom ragal yàlla ba jullit yi wuyu wuyu ji loolu ëllëg yow man xiyaamul jëm nañ yëg ne dañoo am responsabilité dañuy dee dañuy daje ak yàlla wallahi lu ñu kannasu kannasu xam ne danañ dee maadaama xam nañ danañ dee gars yi nee nañ boo xamee ne da ngay bëreeg mbër xam nga ne moo la mën tey jii bu ma doon bëreeg Balla Gaye wala may bëreeg Bombardier gars yi man mi ma toog fii ñu def signal ma combat may bëreeg ñoom lan lay fas sama xol ngeen defe ne du ngeen ma ko wax man maa leen di daan ay xam ngeen ne xam naa ne ñoom man man xam naa ne damay daan dama naan waaw garaaw bu waa ji arbitre sifflé rek damay daw dugg ci tànk yi lu ma am jël du ma fa xaar sax ay dóor gi ay kurfañ ah noonu nga xamee ne waa ji moo la mën nga combine bëri bi ñoo mbokk yi ñoo yàlla ku mën benn mbër dafa ñëw ci benn sëriñ na ko ñaanal ma ku ma dajal daan mu ne ko waaw mu ne nekk de mu daal ne ko kaay mu taxaw mu ubbi fenêtre bi du ubbee fenêtre mu ne ko kaay mu taxaw mu ne ko xoolal stade bi ñii ñëpp ki leen daan boo dajee ak moom mbaa da ko woon armeel yi ñu ko xoolal stade bi ki tëral ñii ñëpp boo dajee ak moom nooy def ah ñaata armeel ñoo am Sénégal xamu leen ko ki tëral ñooñu bu dajee ak ñun ngeen defe ne duñu tëral mbokk yi dinañu tëral yàlla nee na ay na maa takkuunu yëg leen fu ngeen mën a ne yudrikumul mawt dee dina leen fa fekk rey leen fu ngeen mën a nekk rek la wax fan ngay léegi nag waxal xalaatal fenn ku nekk rek fi nga toog xalaatal fenn ndax yàlla nee na foo mën a nekk dee dina fa fekk loqati la nga dee léegi nag kenn ci ñu war na xalaat xanaa dëgg-dëgg su la benn ponkal waxoon yow foo nekk dinaa la fa fekk looy xalaat mooy nga xalaat foo xam ne boobu kii moom bu ñëwee dina fa fekk ponkal yu mel ne moom buñ ko nee ñu ne ko benn waaye dafa nekk ci circulation bi waa ju réew di dawal oto ñëw rek fekk benn oto ci kanamam mu mu yuuxu waa ji klaxonné saaga ko génn nag ne nii jagar jagari waaye bi waa ji ubbee bunt bi nekk 3 mètres mu ne nii waa ji ne ko nii tourné ko ginnaaw bule ko ci taat bi dafa duggaat ci otoom rek toog ba ñaw allahu akbar ak ni ak ni mu génne woon nag ak waa ji ni mu génnee waaye génn génn yu tàng jàkkar jàkkar yi fërëx fërëx ñëw fëgg buntu oto bi saaga waa ji waa ji waa ji ubbee oto bi mu ne nii gis ko muy 3 mètres ci kaw mu ne nii foofu la xamoon ne jàmm jeex na gars yi bu ñuy wax dëgg nanu nanu xam ne yàlla du sunu moroom fu jibril dee muhammad sallallahu alayhi wa sallam dee ibrahim moussa isa nuh waaye waaye bu ñu ne da ngeen di dee ñu war ko gëm waay ma de dégg naa benn waykat ci Sénégal ne àdduna yaa mën a wor boo ma boo jëlee sama ndey jël sama baay dig ma dund dang may nax ah ki jël sa ndey jël sa baay ne la non garaawul non yow amul problème dalay nax wallahi dina la jël si yàlla nee na ayna ma takunu fu ngeen mën a ne fu ngeen mën a ne amul istisna de amul damay làqatu ji xëy na bu ma nekkee ci ginnaaw sëñ bi wala ma nekk ci ginnaaw commissaire wala ma nekk ci ginnaaw sentir dam nangam wala ma nekk ci ginnaaw xëy na malaaka bu ñëwee du ma dee ayna ma takunu la wax fu ngeen mën a ne yàlla daf ñu lancé défi fu ngeen mën a ne acca nan xalaat fenn waaye ndax suñ fa demee dundee may naa leen cinq minutes ngeen xalaat fu ñuy nekk te dundee fan la am na kay am na fu ñuy nekk dundee de am na àjjana rek la di nekk dundee àjjana àjjana kese àjjana dee dootu fa am amma lu loolu dañuy dee maadaama ñu ngi ci àdduna rek dañuy dee sëriñ Ibu Saaxo dafa doon def gàmmu xam nga moom ndeysaan buy gàmmu gàmmu gi day xumb mu jékki-jékki rek daan ne am naa aaya boo xam ne ku ko jàng doo dee gars yi ne ah mu ne waaw gars yi ne waxal mu ne déedéet bala may wax kay taabal ji foog mu fees xaalis gars yi sànni sànni sànni sànni sànni ba mu xam ne fi mu nekk nii moom dépasse suba moom ak ginnaaw suba ak ñetti fan moom kenn du du waaw loolu moom moom réglé na ko moom ne waa doy na waaw léegi nag jël leen big yi ak feuilles yi ngeen bind gars yi ne waa bismillah yoon nañu déglu mu ne bañ a juddu aaya bi mooy bañ a juddu xam ngeen bañ a juddu mu ne ku repp ba juddu rek dee ku bañ a dee daal mooy ku judduwul waaye ku repp ba dukki dukki ci àdduna bi teg fi tànk allah ne ngeew sa yaay tourné ne lan laa am ñu ne ko góor wala jigéen ndeysaan mu ne indil leen ma ko ma xool ko ñu indi ko mu raayu bopp bi daal di koy biisu daal di fàtte mettitu matti met mettitu ay weer ay at mu fàtte loolu te xoola instant yooyu sa yaay di fàtte coono yooyu deret baa ngi naaj ñawaguñ ko wala daggaguñu cordon bi la collé ak sa yaay daggaguñu buum gi xoolal moom ndeysaan fi mu nekk fàtte na loolu ndeysaan ak ni ak li metti li mun jóge moo tax ku yeb sa yaay doo nit ku sa yaay di wax nga ciy teg baat war nga xoolaat sa bopp war nga xoolaat yaay kan képp koo xam ne ci ñun sa yaay day wax laa nga ciy teg baat war nga xoolaat sa bopp yàlla mooy wax ak nun mu ne nu aynama takunu fu ngeen mën a ne yudrikumul mawtu dee dina leen fa fekk walaw kuntum yàlla xolal bañ na sax ba mu ne même bu ngeen nekkoon fii buruji musayyada ci ay tata yu ñu ràbb wala ngeen ne ay miir yu ñu def fer def ci béton armé blindé ko ba mu ne keng ba boo ci dóoree obi du toj yàlla nee na bu ngeen duggoon ci tabax yu mel noonu di ngeen dee pourtant miir bu ñu miiri tata ko ba mu ne keng boo ci dóoree bomb miir bi ne kekk taxaw foofu kay dëgg-dëgg xanaa nit ku fa dugg war na am sécurité wala ku fa dugg war nga am sécurité waaye ki yàlla jox dee miir yooyu ñoo ko munul téye nettali naa laan démb nee naa leen Daawud dafa fiiroon su bàyyi woon ay soxnaam ci biir kër gi wala njabootam day tëj tëj tëj tëj tëj def caabi ci poosam génn benn bis mun a cëpp seen benn waaye teg séesam ci digg kër gi toog tegalay tànkam mu ñëw ne ko eh foo jaar ba dugg mu ne ko man caabi mënumaa téye mu xam ne kii malakal mawti la allo fi wut mu ne ko yow laa jël si jeexal nga de ndeysaan jeexal nga mbokk yi li gën a metti ci dundu doomu aadama mooy nga xam ne da ngay dee nga xam ne tey jeexal nga yàlla naan kalla iza balagati taraqiya wa qiila man raaq wa zanna annahu alfiraq waltafati saaqu bisaaq ila rabbika yawma idin almasaq yàlla nee na géñ naa ci sama màggaay su la malaaka di rey ñëw ba ci sa déndi baat mu xëcc ruugi ba fii yàlla bu nit di dee bu ñu xëccee ruugi ba fii ci put gi yàlla danaan malaaka bay may ma tuuti may ma ma xool man la wala gaayi la falawla iza balagati alxulquuma wa antum hiina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaykum walakin la tubsirun yàlla nee na ba ma xëccee ruugi ba fii yéen ñëpp yéen a ngi fi papa ngi nii yaay a ngi nii nijaay jaa ngi maam jaa ngi jarbaat yaa ngi doom yaay yaay tout le monde yéen a ngi nii acca yéen ñëpp yéen a ngi gis jàpp leen ci bu mu dee wa antum hiina izin tanzurun yéen a ngi gis leer na leen kii day dee yàlla mu ne wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun man maa leen ko gën a jege mais gisu leen ma mana su ne man malaaka yi mu chargé liggéey boobu lay wax malaaka yi yor dee su ruugi yeggee fii yàlla ne def leen dànk su ko defee waa jii dee mu ne man raaq mbokk yi ñëw ñu ne man raaq kan mooy mocc ana mocckat bi ñu la wooy sëriñi tariyaax bi mu ñëw indaale àlluweem ak daam ak witeen loolu yunus naan ɗacca pakketooje laaci nagge maynge ina ñolna haa ñuli ina waɗa daha Huh? wona laaci nagge maynge watte he ko laaci nagge maynge watte daha walla ko laaci pucci mbatton heen ndeysan allahu akbar sëriñ bi ñëw jël daa commencé bind falax ak naasi ayatal kursi yu daa di tufli raay bind ñu naanal sang yàlla mu ne dara kii tëdd fii wa zanna annahu lfiraq man raaq ñu ne ana docteur bi mu ñëw indi ji ay nu mu tudd takk loolu écouteurs yi ci nopp yi di xool ndax kër bi mu ngi mi ngi yëngu su paree tëkk takk ñu jëlee tension yi jël thermomètre dugal xool tàngaay yaram bi su paree bind ordonnance dem leen léegi léegi léegi léegi rapidement ah yàlla mu ne ordonnance bi amul njëriñ de wa zanna annahu lfiraax kii wóor na ko ne day dee ndeysaan du ñu yëg rek lu dul wal tafati saaqu bi saaq su njëkkatee loxo mu daanu yëkkati mu daanu wal tafati saaqu bi saaq loxo fekki tànk loxo fekki tànk tànk fekki suuf wal tafati saaqu bi saaq ñu ne lu xew yàlla mu ne ila rabbika yawma idin il masaax kii kii tëdd fii leer na ko ne yéen a fi nekk di cëpp cëpp waaye instant yi mu ngi waaj ci beneen monde am na ñeneen ñu ko dikkal ah foofu nag la malaaka bi yor lekk di ñëwee ndeke li ngay lekk di dafa am malaaka bu ko yor ñëw ne la yaa abdallah bu dee góor nga bu dee jigéen mu ne nga la mu ne la yaa amatallah tuftu laka mashariqa al ard wa magharibaha falam najid laka luqmata taamin taakulu bi ee jaamu yàlla bi nga ne ah ñu ne asamaan ak suuf penku ak sow wër nañu lépp amatuloo dànk boo lekk li nga doon lekk jeex na foofu nga dégg ndeysaan mbokk yi ne mënatul lekk yàpp mënatul lekk ceeb mënatul lekk sax ruy ñu ne tàngal leen meew mi naanal ko wàcce leen ko lal bi suuf see ëpp yërmande ñu daal lay jàppoo lal benn basang ci suuf wàcce mat la bi teg ci daal lay jël teg ci kaw mat la bi wàcce nañ la lal bi lal bi dootoo ci yéeg pare nga ci lal mënatoo sol yére ñu ne solal leen ko faari mbaam xam ngeen faari mbaam ah ku xam faari mbaam dañuy jël benn sër bënn ci digg bi takk ñaari cat yi daal la koy solal loolu mooy faari mbaam wala yére yi léegi interdit nañ la ko commencé nañu nangu yére yi tekki nañ jaaro yi tekki montre bi commencé jël yére yi teg ne lan lay yan yére lañ lay solal moment boobu ganila jasner lan lañ lay solal gars yi yére bi gën a dee ci yére yi lan lay solal ndeysaan am na fooy tollu sax ku lay seet si du la mën a gis dañ naan day nelaw fekk nelawul de maanaam aal bi mu toll mooy mënatul recevoir nit da nga daan nekk nit ñi ba ci yàgg ñu lay tëj léegi yow nit ñi dootuñu la gisati ay ay personnes yu ndaw ñooy am ci yow accès jawar doom terminé yenn saa yi sax mbokk bu jege jege jege jege ñëw ñu ne non non day nelaw day nelaw quoi day nelaw rek lañ la day nelaw day nelaw deuxième malaaka mooy ñëw ci yow bu dee góor nga mu ne la yaa abdallah bu dee jigéen mu ne la yaa amatallah tuftu laka mashariqa al ard wa magharibaha falam najid laka sharbata main tashrabu biha wër nañ asamaan ak suuf penk ak sow amatuloo guuxu ndox ndeysaan moment yooyu nag luñ la naanal du dem ndax fii moo tëju bu ñu dugalee meew mi it da ngay gis muy rongalaan di jaar nii am luy rëcc di dugg am luy rëcc di génn ndeysaan ñu yor morso bu ñu dugalee am lu dugg am lu génn ñu fomp ndeysaan ndeysaan ñaan ah pourtant am na lu dugg de ndeysaan won ko benni kanko kay hannde o meeɗi huunde ndeysaan allah la ilaha illallah yal nan yàlla yërëm waaye yal nan yàlla yërëm waay xoolal ki daan joxe dépasse këram ñu jëndal ko ci lu ko neex mu ñëw toog ñu defaral ko table bu luxe bu rafet tegal ko ay serviette tegal ko façon saabu ay liquide mu raxasu nu ko neexee lekk nu mu ko neexee naan nu mu ko neexee waajooju moo toog tey ñu koy saxal waaye waxuma ñu koy saxal lekk waaye ñu koy saxal meew te meew mi mënta dugg xam nga mbokk yi li ñuy wax ay waay ndeysaan tey de am na lu jàll moom de tey mos na dara loolu mooy kan koo meedi hande huunde moom de mos na dara ndax kaas bi naanal nañ ko ba mu digg démb sax de moom dara mënut a woon dem amoon nañ benn mbokk bu feebaroon jamono yi passé ñu ko daan seeti hôpital ndeysaan waaye fan yu mujj yi boo ñëwee dugg xool ko bët yi rek ngay gis xef yi di dem di ñëwaat xef yi xef yi soo ko xoolee boo génnee bu fekkee ne nit nga di nga jaamu yàlla nga imaginer ko démb këram ak soxnaam ci njabootam ak waa këram nga imaginer ko tey fi mu tëdd baaraam sax mënul yëngatu baaraam doomu aadama na góorgóorlu jaamu yàlla mbokk yi ku ñu bëgg nan wax nan jaamu yàlla nañ leen bàyyi font yàlla li mu wax mooy dëgg de lii mu ñu wax ay na ma takunu fu ngeen mën a nekk yudrikumul mawt dee dina leen fa fekk walaw kuntum fii buruji musayyada même bu ngeen duggoon ci ay tata yu ñu blindé dee dina leen fa fekk di ngeen dee lu ko yàlla waxee ba léegi gisu leen lu deltu ginnaaw dee rek ngeen di gis nit ñaa ngi dee rek wala marché leen pour du ngeen dee jóg leen ngeen marché ngeen takk ay brassard yu rouge dina tere dee bind leen ci journaux yi ñaxtu leen nañ ñaxtu xam nga Sénégal ku am lu la metti nooy def da ngay ñaxtu ah wala yenn saa nga de gars yi ne non da ngeen dem ci journaux yi rek bu ngeen dem ci journaux yi rek gars yi dañoo ragal mbooloo léegi bu ngeen dem ci journaux yi rek léegi gars yi daal di bàyyi affaire bi gars yi suba ñu ñem nañ daje fii ñu mars waay ñu ne duñ dee ñu woo journaux yëpp ak rajo yeeg télé yi ndax dinañ tere dee ah ndeysaan dee ngi noonu ñaata malaaka ñoo wax ak waa ji ñaar mu des kenn ñetteel malaaka ñëw kee da leen woon wër nañu asamaan ak suuf penku ak saw amatuloo loo lekk kee ñëw ne la wër nañu asamaan ak suuf penku boo saw amatuloo ndox ñetteel kii ñëw ne la wër nañu asamaan ak suuf penku ak saw amatoo foo teg sa tànk li nga doon dox jeex na su la malaaka waxee loolu tànk bi dootul doxati même boo fi desee ay fanit da ngay tëdd rek mais dootoo dox même booy génn dañ lay jàppoo njaggondiree ma jàppoo leen ko ñi nekk ci bopp bi ñi nekk ci ndigg li ñi nekk ci tànk yi même bu lay dugal ci oto di yóbbu ci hôpital it dañ lay jàpp dañ lay jàppoo ndeysaan est-ce que amatoo foo teg sa tànk li nga doon dox dox nga ko dox jeex na ñaata malaaka ñoo wax ak yow ñeenteelu malaaka ñëw ne la wër nañ asamaan ak suuf penku ak saw amatuloo loo noyyi ngelaw li nga war a noyyi yëpp jël nga ko jeex na foofu nag fii instant yooyu ngeen gis waa ji noyyi bi dootul neex day xarang-rangi mel ne buntu seng bu ñuy wàcce buntu magasin bu ñuy wàcce te ruq yi amul graisse buntu magasin yu ngand yooyu ñuy wàcce muy wàcc suñ koy wàcce te amul graisse nu muy def day xararar yi ñëpp di dégg xam ne waajaa ngi tëj mais buñ ci defoon graisse ba mu nooy buy wàcc kenn du ko yëg buñ koy tëj kenn du ko yëg mais maadaama amul loolu ñëpp a koy dégg waa ji nag fa lay toog di xarara di kar ndeysaan ku fekke di nga ko yërëm ku fekke di nga ko yërëm ndax dee bi nu muy méttee ndax xarar bi nu muy méttee juróomeelu malaaka mooy ñëw allahu akbar kooku mooy malakal mooti nag bu fekkee jaam bi ku baax la kii dee ñoom délégation boobu cortège malaaka boobu ak cortège lañ ñaata malaaka lañ abadan ñaata lañ ñaata lañ malaaka yi ma doon wax sànq ñaata lañ ëpp na ñeent de kunu maana kunu maana nekk leen ak ñun nekk leen ak man dégg ngeen saa yi ma defee deux minutes dinaa laaj saa yi ma defee deux minutes dinaa laaj maa ngi dem nekk leen ak ñun dégg ngeen bu yaram yi toog ci jàkka ji xel yi nekk fële ci Facebook bi wala nekk fële ci waaw ndogu bi est-ce que war na ñor wala ñoragul kunu maana nekk leen ak ñun ñaata malaaka lañ cinq lañ ñooñu la yàlla di giñ ci suratu naziat cortège lañ wan naziati xarqa wan nachitaati nashto bu dee ku baax mooy dee juróom ñooñu ñooy ñëw ñoom la yàlla dinaan wan nachitaati nashto cinq lañ bu dee ku bon la ñoom la yàlla naan wan naziati xarqa lan mooy farq bi bu dee ku bon mooy dee dañuy buddi ruux bi bu dee ku baax dañuy rocc dañ koy nocc xam ngeen nañ koy noccee booy ñaw sa yére dafa xotteeku nga ut puso wëñ di ñaw bi nga nosee puso bi ba pare lan nga war a def ci ci ci ci wëñ bi ci ginnaaw gi loo ci war a def mooy nga roccantal ko takk ko léegi nag yow defoo loolu jël nga nas nga puso bi ci wëñ bi ràbb nga lu baree bari boros boros lu baree bari nga daal di xëcc puso bi wëñ bi nu muy def wëñ bi day roccee ko fa jeex ne la mbir lii takkoo ma woon wala léegi nag malaaka yu baax yi noonu la ñuy roccee ruuxu jullit su fekkee kii dee jullit la bu ñëwee fekk ko fi mu tëdd avant ñu ñëw dañuy dem aljanna firdaws ñu indi fa ay serviette yu set yu xeeñ parfum bu neex bi dàq parfum àdduna bi te parfum àdduna bi gën a neex misk la misk moo gën a neex moom ngay dem ci jaaykat yi nga laajte ko ñu ne la cinq cent mille butéel bi fekk butéel bi nii la dool nga ne jaay leen ma ci genn wàll ñu ne la cap cent mille cap mooy loolu ñuy def ci biir parfum yenn saa espèce raakol boobu ñu ne la cap cent mille kon boobu kon neex na de bu ko dàq la malaaka yooyu dina ci sarve di ñëw bu ñëwee fekk la fi nga tëdd ñu teg ko ci sa bakkan fóonal la ne la unzur maqaadaka fil janna xoolal sa place aljanna nga xool rek bët yi daal di dem ñu rocc ruu bi ndànk yonent bi ne bët dafay topp ruu bët day topp ruu di xool ruu gi daal di génn bët yi daal di aju weex taal lu tax parce que bët yi topp na ruu gi gars yi jël ruu googu def ko ci sarvet yi laxas ba mu baax ba mu xeeñ ñu daal dem ba ilayin ñoom ñi ñu ko dénkoon ñu daal di koy déposé bal balaa ruu bi di dem ilayin sax day bàkk day na dem ba mala ul ala bàkk yàlla dem ba kaw asamaan ma fa yàlla nekk mu tagg yàlla yàlla ne malaaka yi jël leen sama ruu jaam bi ngeen débbul ma ko illa yii na ngeen déposé ko su heure sang jotee ngeen jël ruu gi dugal ko ci yaram bi mu fekkee sang bi ngeen pare ngeen delloo ko malaaka yi bu ñuy yóbbu ruu waa ji ci kaw asamaan asamaan yi dañuy xeeñ di ubbeeku malaaka yi naan waa kii kan la borom ruu gu set gu neex gu tey kii kan la borom ruu gu yàlla gërëm kii kan la ñu ne diw la doomu diw ak diw ñu ne kii de yàlla kontaan na ci moom waaw su fekkee na kii de keneen la am naa féq la woon wala kàccoor la woon wala ab saay-saay la woon wala ab yéeféer la woon malaaka yooyu di ñëw buñ ñëwee ñooñu yàlla naan wan naasiaat suñu ñëw safara la ñuy jaar indi fa ay keppukaay yu mel ne yi tëgg yi di jëlee jaaro yi di ko dugal ci biir safara tëgg yi tëgg jaaro yi wala lam yi wala jaaro nopp yi wala seeni or yi ay keppukaay la ñuy yor di ko dugalee yi ñuy liggéeyee jahannama la ñuy jaar jël fa keppukaay yooyu ñëw buñ ñee fekk waa ji fi mu war a faatoo ruu bi day bañ a génn ci yaram bi lu tax parce que xam nañ ne kii baaxul suñ ñee ci bopp bi ruu bi day daw dem ci tànk yi buñ ñee ci tànk yi ruu bi daw dem ci ndigg li ñoom duñ fa nekk di sonn di dem fi di wërante ak moom seen keppukaay yooyu la ñuy jël rek daal di ko ciy cap dóor ko ci yaram bi mu dugg ñu daal di bif mu génn moo tax yàlla mu ne wan naziaati garqa giñ naa ci malaaka yi buddi ruuxu kàccoor yi buñ jëlee ruu googu ci ay morso yu doy waar borom xam-xam yi sax am na ñu ne ci mooy morso yu jigéen yooyu di gis mbaax yi ñuy fompoo moom la ñuy jël ndeysaan daat ci laxas ruu gi suñu buggee dem kaw asamaan rek ndax xasawaay gi ak xet gi asamaan yi commencé xasaw malaaka yi tëj asamaan yi malaaka yi yuuxu ne waaw borom ruu bu salte bu bon bu xasaw bi kan la borom ruu gu yàlla mere gi kan la yàlla ne leen yóbbul leen ma ko sijjiin ngeen dencal ma ko foofu ba heure sang bi jot ngeen indi ko mu teewee sang bi su paree ngeen dellal ma ko sijjiin ku njëkk ki fan lañ yóbbu ruum illayin jàng ngeen ko innal abraar wa innal fujjaar wa innal fujjaar la fi sijjiin mu ngoog moo tax kon ndeke mbir yi bu nu toog fii rek di gis ci biti li nuy gis nii déedéet mbir yi beneen dund la dee beneen affaire la dee beneen xaal la dee beneen liggéey la beneen jëf la dafa am lu mu laaj dee dafa laaj balaa muy ñëw ci yow nga préparé ku am combat préparé ko wala ku am marche gars yi ku am marche nooy def da ngay préparé ah ku am combat combat bu ngand bi nag mooy dee sunu digganteeg dee mooy combat bu mag bi sunu digganteeg bis bu ñuy daje ji sunu borom sunu première guddi ci bàmmeel waa jooju génn na àdduna gaa yooyu génn nañ àdduna ku baax ki gis ngeen ni mu génnee àdduna ku bon ki gis ngeen ni mu génnee àdduna léegi lan moo des mooy ñu yóbbu ko ci morgue bi nag commencé ko sang wala wala ñi lay sang bu ñëwee li ñuy njëkk a def mooy simmi sa yére yi nga sol allahu akbar wala li nga doon bañ ñu gis ko tey sa yaram bi bu dee gaa yu jàng sunna ak diine ñu doxal li yonent bi wax ci yow mooy sang la ba pare te say awra dara du ci feeñ say awra dara du ci feeñ parce que ñooñu dañoo jàng sunna ci sunna bu ñuy sang ku faatu waruñoo tiim ci ay awraam kenn du ko sang dum kenn du sang néew dum kenn du ko futti dum dañuy jël serviette bu ñuy simbi yére yi sax serviette bi lañu war a teg ci jumbax bi ba ci óom yi maanaam waa ji summi yére yi loxoom yi ñooy dugg waaye ay bëtam du tamit waaw yow bokkoon nga ci ñi ko doon sang ok noonu la ñuy sangee néew kii sang néew warul teg ay bëtam ci awra ki muy sang góor la am jigéen la waroo ko def góor mooy sang góor jigéen mooy sang jigéen lu dul ci yenn istisna yi lu mel ne jëkkër ak jabar yu demee noonu loolu ñu koy fàttali mbokk yi képp ku am mbokk bu faatu ñu koy sang kenn waru ko futti yaramu neen dañuy simi yére yi simi tubéy bi wala ñu tekki sër bi waaye balaa boobu am na lu ko jiitu mooy jël morso teg ci jumbax bi ba ci óom yi leer na léegi nag ñu daal lay dugal ci morgue bi su fekkee dafa gaañu faatu ci waxtu woo xam ne kenn mënu koo yóbbu instant yi parce que guddi la deux heures du matin la wala trois heures du matin foog ñu xaar bër set ah kon buñ koy yóbbu ci morgue bi am na lu ci wat lan moo ci wat balaa ñu koy génne kër gi mooy nañu wàcc bët yi nañu wàcc bët yi nañu ub gémmiñ gi su fekkee gémmiñ gi buñ ko delloo mu mu ŋaaŋaat nañ jël benn morceau ñu takk ko ci ŋaam gi ak fii ci digg bopp bi pour gémmiñ gi tëju ñu jël ñaari baaraam yu mag yii takk leen nii ci jumbax bi wàcce ko ba ci naq bi tàllal leen ba ci naq bi ñu takk ñaari baaraam yi ndax loxo yi bañ a wàcc ñu tàllal ñaari tànk yi bës ko daal di takk ñaari baaraam yu mag yi nii ñu takkante ni ñu dend ñu takk fii ñaari yeel yi ñu jël lu xaw a diis tuuti ñu teg ko ci biir bi balaa ngelaw li di ko dugg muy solo ñu daal di koy muur dem tëddi ba suba ñun ñëpp foofu la ñuy mujjee ji allahu akbar léegi nag bët seet na ñëw nañ nag war koo sang bu ñuy sang néew war nañu am ay éléments ay bagages ki sang néew lu njëkk mooy war na am ay gants war na am eau de javel war na am saabu war na am njàmpi war na am xobi siddiim wala mu am parfum bu amul alcool mu am paan ñetti paan ak benn pot ak ñaari serviette ak malikaan ak witeen lii yëpp kuy sang néew war na ko am ah am na bu ma fàtte man na mooy witeen coton waaw mooy mooy remplacer siddéem bi moo koy remplacer wala parfum bi buñ ko amee yenn saa yi nga gis ñuy sang néew gaa yi def uti ci ndoxum zam-zam ñii di ku nekk dugg ci ñi naan nañ indi lii ñi naan nañ def la yenn yenn yenn ak bidaa la ñu wut ñetti nit wala ñu wut juróomi nit wala ñu wut juróomi nit ça dépend ak waa ji yaram bi nu mu toll ñooñu ñoo koy sang bu dee nit ordinaire yi la nga xam ne amuñu doole nangam nangam ñun ñetti nit suñ ñëwee li ñu njëkk a def mooy sangu koy pour yaram bi set première paan bi dañ ci def eau de javel première paan ñetti paan yi ma waxoon paanu ndox yi première paan bi eau de javel lañ ciy def jël jàpp waa ji sol gant kenn mooy sotti kenn jàpp kenn di rang di sang sang bu njëkk boobu sangu nii la pour set comme ni ngay sangoo boo tilimee moo tax ndox mi di am eau de javel am saabu am jàmpe ñu sangu ko ba mu set wécc yaram bi sangu ko comme kuy sangu ba yaram bi si yëpp set du ñu bàyyi fenn buñ sangee sangu ba ba mu set ñu génne paan boobu amoon eau de javel bi génne eau de javel bi génne saabu bi ñu indi deuxième paan bi paan boobu moom koy sangee sangu néew ni ñuy sangoo set la ñuy sangee néew raxas loxo yi ñetti yoon raxas diggante jumbax bi ba ci óom yi ñetti yoon jàppal ko benn benn ba jàpp bi mat ñu tàmbalee ndey joor di ko di ko raxas ndey joor droite bu droite bi jeexee ñu jël gauche bi ba mu mat ñu génne paan boobu ñaata paan moo des ñu indi troisième paan bi def ci parfum bi sotti ko ba ndox mi xeeñ ñu sotti ko ndox mi tàmbalee ci bopp bi di ko sotti di raxas di sotti ba mu egg ci tànk yi noonu la ñuy sangee néew lu des lu ñu laalagul des na càngaay bi des na witteen bi des na parfum bi wala des na siddéem bi siddéem bi ci ndox mi lay ànd bu ñu amul parfum bu ñu amee parfum siddéem bi mën naa mën naa bañ a bañ a ci ñëw kon des na witteen des na mbalaan mi des na parfum bi bi ñu ko sangee sang boobu ba pare nag lu ñuy def mooy morceau boobu moo waxoon ñaari morceau yi ñuy am xam nga bi ñuy sang amoon nañ benn bu ñu muuroon ci kawam jumbax bi ba ci óom bi pour lan pour du ñu gis awraam léegi nag dañuy dindi dañuy indi beneen bu wow bi teg ko ci kaw bu tooy bi daal di rocci bu tooy bi bu wow bi daal di fay nekk ñu génne bu tooy bi wañ ko di ko wañ wañ ko ba ndox mi dañ ñu indiwaat ko fompe ko yaramu néew bi fompe ko ba yaram bi fendi ñu daal dem indi ji witteen bi tas ko witteen bi paquet bi ñu indi ko tas ko jël parfum yi balaa boobu ñu xool waa ji ñu xool sikkim bi peñe ko ba mu peñewu ba mu rafet ñu xool weyi fekkee dafa guddoon ñu dagg ko tànk yi ak loxo yi waaye lépp lu ñu dagg ci néew bi wala luñ ko peñe ci kawar mu génn bopp beeg sikkim bi ak tànk yi weyi loolu dañ koy jël dajalewaat ko bu ñu ko sàngee ba pare dañ koy dugalaat ci biir mu ànd ak moom dem kenn du ko bàyyi ci mbalit bi ñu ko fompee ba mu wow tas nañ coton bi def ci parfum li ñuy njëkk a def mooy jël ci parfum bi benn daggit bu ndaw daal di koy tooyal parfum ba mu tooy daal di koy def ci sujjóotukaay bi fi mu doon sujjóotee ah bu dee daawul sujjóot moom beneen affaire la xanaa kay ki ki ñuy sang kay danaan ki ñu indi ci morgue bi ci jàkka ji kay xanaa danaan sujjóot loolu lañ yaakaar ci moom koy xanaa ñu diw jiw jëbi diw bakkan bi diw ténk yi diw oom yi fi mu doon sujjóotee diw cati baaraam maanaam place sujjóotukaay yi la ñuy diw parfum suñu paree witeen bi ñu def gudd lu gudd tuuti def ci parfum lonk ci baaraam yi lonk ci baaraam yi lonk ci baaraam yi tànk yi suñu paree ñu jël lu bare bare bari daal di koy muur fii suñu paree ñu jël def ci parfum def ci poqataan yi keppal ko ko suñu paree ñu def diggante ñaari tànk yi genou yi fi mu daje ñu def fa parfum daal di keppal tànk yi baaraami tànk yi coton bu am parfum bu fekkee néew bi dafa am fuy nàcc walla gémmiñ gi comme kuy tux comme noonu walla di lok poonu su boobaa problème day am ndax ku dee cigarette bi nga doon tux walla poon bi suñu lay sang day génn moo tax suñuy sang suñuy sang toxkatab cigarette walla toxkatu poon da ngay gis muy yuur di génne godron bu ritax laa mel ne laalo ritax comme laalo godron ñuul ko su boobaa yenn saa yi yenn paa yi jàngul fiq dañ koy jël dëpp ko nit kenn du ko dëpp loolu nan la ñu war a def pour mu gaaw a jeex mooy dañuy dem ci faaru càmmoñ bi wala faaru ndeyjoor bi ni mu tëdde noonu ñu jël serviette bu benn dara daal wala morceau bu rëy ñu daal di koy teg ci faar yi su ko defee biir bi xaw a jóg yëf yi wàcc mais kenn du ko dëpp nit kenn du ko dëpp ndax yonent bi nee na waa safara ñooy dëpp kon nit na bàyyi cigarette nit na bàyyi póon póon yenn saa yi nga dégg ku ne non cigarette araamul de yéen cigarette araam da nga ne non non cigarette araamul c'est que li tax gaa yi gaa yi dañ ko sib ndax nee nañ iblis moo ci saw waaw ma ne benn kopp bu ci xale sawoon ndax diñ ci ndogu ku toll ni iblis kay mu saw ci dara kan kay kon kay foofu la mbon yem iblis kay lu mu saw warta dugg ci gémmiñub jullit te loolu ay wax la rek naan iblis moo saw ci garab gi yooyu ay wax la cigarette daaraam daganut quran sunna ijma daaraam fan lan toll fu nu toll déedéet passé naa foofu passé naa coton bi ci sànk yi gars yi nekk leen ak man xanaa bugg leen bugg leen mën sang néew te sang néew da ngay am tiyaaba de mbokk jullit yi lan moo des ñu indi morso bu mag bi nag léegi mbalaan miñ lay sàngee bu dee ci jamono yonent alayhi salaatu wasalaam ñetti sër la daan doon ba léegi mën nañ ko def ñetti sër ah su ma amoon léegi morso fi ma demorte rek ma wan leen ko mun ngeen ko def ñetti morso nga xam ne kenn du ko xotti kenn du ko ñaw ma xool kaala bi jàppal cat bi xëccal mu taxaw mu dem gis ngeen ni mu nekkee nii ni mu guddee ah li njëkk mooy dañuy xam néew bi ni mu guddee néew bi mun li mooy guddaayam natt nañ ko morso baa ngi nii ñu ne nii am nañ deux ñu ne nii muy trois tàppal mu tàlleeg am nañ trois gis nga te day fatt lëndëm kenn xottiwul kenn nekk fi naan ma o waɗane tuuba o waɗane wutte o waɗane kaala o waɗane rob o waɗane cakkal loolu yëpp ay bidaa la mu ngi nii nekk na ñetti morso wala nekkul ñett konte ko pour ñoo xam ñett la kontel fii mu xam ñoo xam ñett la benn ñaar ñett mu ngoog noonu lañ koy defee ko defee mu nekk ñett ñu njëkk bi ci suuf waaye ba tey am na lu tegu ci kawam aw naa kenn gis ko mooy deuxième morceau ba ba ñu tàmbale ko ba mu képp ko ñu teg deuxième bi kañ la ñuy génne morceau bi mooy troisième sër bi mu jóge suñu paree bopp bi la ñuy njëkk a takk fii mooy sër yi fi ñu daje foofu la ñuy njëkk a takk morceau bi malikaan boobu ñuy jënd wala perkaal bi balaa ñu koy sàngee néew bi dañ ciy dagg ay buum yu ñu koy takkee ay buum yu ñu takkee néew bi wala benn borom xam ne man ni ma gis ñu def nit ku dee suñ ko defoon ku dund sax du rëcc suñ ko defoon kuy dund sax tey bu ñu jëloon kenn ci ñun ñi dugal la ci ñetti sër takk la ba nga dëgër daal di jox ay booy bolde ne booy dóor leen balaa ngay tekkee ku musiba am d'accord ngeen wala waxuma laa nag ñu def ko ku dee bopp bi la ñuy njëkk a takk bu ñu takkee bopp bi ci kaw morceau yi fi ñuy daje première takk-takk bi fii lay nekk ci baat bi deuxième takk-takk bi boole mbagg yi ak dënn bi troisième bi boole conc yi ak biir bi noonu lañ koy toppee ba mu nekk juróom ñaari takk-takk ba ca tànk ya bu ñu paree ñu jël parfum butéel yi des daal di koy sotti ci kawam bu ñu paree ñu daal di indi kees gi dugal ko ci indi kubéer gi daal di tëj daal ne imaam pare nañ imaam mu ne am mu ne ko min ngay ni min ngay ni ñu ne pare nañ ndeysaan allahu akbar xoola waa ji rek gars yi commencé xalaat ndeysaan démb maa ngi moom rek ñoo toogandoo woon non démb sama jaar na sama kër léegi la ma woo téléphone malaaka yi naan leen laqad kunta fi gaflatin an haza fa kasafna anka xitaaka fa basaruka al yawma hadid ne gis nga ñii taxaw bi te loolu ñuy def yëpp ruu bi day fekke de di gis ruu bi day fekke di gis di gis copain yi xaritam yi waa kërëm yi ku nekk ruu bi day ñëw ci yow ne la man la maa ngi nii fu ngeen ma jëmee fu ngeen ma jëmee mais nit ñi duñ gis ruu bi nit ñi moom ndeysaan dañuy toog rek ruu bi néew fu nekk lay ñëw ci yow mais duñ ko gis parce que ruu baa ngi ci beneen aduna yow yaa ngi ci beneen aduna yow mu ngi alamul arwaax yow yaa ngi alamul dunia dafa am ay monde am na alamul malaika alamul jinn alamul ins dama ay monde ruu bi léegi bokkatoog yow monde bi nga nekk moo tax doo gis ñu woo élimaan waa jàkka ji daal di génn imam bi bu dee jàng na diine mu ne def leen ñetti sàppi su dee nit ñi dañoo bari ñu bàyyi nit ñi dem
ñu bàyyi nit ñi dem ko ñu bàyyi nit ñi ñu def sàppe yi mu dem parce que sàppe yi ëpp na ñett bu dee foo xam ne nit ñi mën nañoo nekk ñetti sàpp ñu def ko ñett bu dee foo xam ne dafa xat comme suñu dëkk yu alku yi ñu bàyyi nit ñi rek ñu ran dem def ay ran ilimaan bu génnee lu muy wax na dugg àjjana gars yi nee nañ jullee néew amul jàng fatiha yéen a ngi jàng lool de xam naa il faut ñu organiser fi ahkaamul janaïs xam nga ni ñuy def dañuy bàyyi ba koor gi di jeex bu ñu wooree bu ñu woree ah premier dimanche ah dégg ngeen mbokk yi bu ñu woree premier dimanche ci ngoon ñun ñëpp ñu daje fii kenn ci yéen volontaire yu nekk néew ñu daal di indi bagage yi ñu wan leen nu ñuy sangeeku dee dégg ngeen loolu moo gën quoi ñu dagg ko foofu sinon ah ñu eggali julli gi aywa imam bi kon nee nañ jàng jullee néew amul fatiha ah kay lan mooy dalil jullee néew day am fatiha luy dalil bi la salaata liman lam yaqra fatihatul kitab janaza salaat la salaatul janaza la ñu wax kon salaat la yonent bi nee na bépp julli bu njàngul fatiha julli googu wirul kon dañ war a jàng ci jullee néew fatiha suñ kàbbaree kàbbar bu njëkk imam bu ne allahu akbar lu muy def day def comme suy julli duwaaw istiftah aouzu billahi min shaitan rajim jàng fatiha ba mu jeex mu daal di kabbaraat def salatu ala ibrahim ala hoto jàngu ɗum ɗum ko duwawu maayɓe am na ñuy bañ kuy ñaan ba pare daal di ne allahuma salli ala muhammadin wa ala soo koy ñu ne ah ah moom loolu pour ku dee la ku dee la fi nga fi mu toll kan moo leen wax ne salaatu ala ibrahima jullee ku dee la ban riwaaya moo ñëw ne pour ko ku dee la déedéet salaatu ala ibrahim lañ ngiy def mu des troisième kabbar imam ne allahu akbar am na riwaaya yu bëree bëri mais man bii laa tànn bii ma leen di wax moom laa tànn dama am ne allahuma yow yàlla innahu kii tëdd fii waa ji li ma la mën a xamal daal mooy abduka sa jaam la wabnu abdika sa doomu jaam bu góor la wabnu amatika sa doomu jaam bu jigéen la ñaata yoon lañu accusé waa ji jaam imaam dane allahu akbar gaa ñi ne allahu akbar mu ne yàlla kii jaam la baayam jaam la yaayam jaam la loolu tey jii ku ñëwoon sa buntu kër ubbi sone nga ubbi mu ne la jaam doomu jaam doomu jaam fu ngeen jëm foo jëm ak moom ah tey imaam ne kii jaam la baayam jaam la yaayam jaam la nit ñi ne amin amin imaam amin amin imaam amin wax nga dëgg imaam wax nga dëgg allahu akbar kenn kaasul te tey jii boo dund yaa ngi dund nii su benn waay li nga woor woor woor benn waay bu ñëwoon léegi fekk la sa kër nga toog ci sa sa sa ñetti sa ñeenti jabar yi wër la mu ubbi saal bi fekk la nga toog gaa yi wër la njaboot bi mu ne xaw ma looy jaagaar jaagaar rek sa grand mbubb bi jaam doomu jaam doomu jaam ah yaakaar naa waa jooju keroog su fekkee ne dogagul woon dina dog heure boobu balaa ñu koy génne kër gi waa tey ndeysaan yaa ngi nii mbokk yëpp a ngi nii famille bi yëpp njaboot gaa ngi nii xarit yaa ngi nii ñu ne jaam doomu jaam doomu jaam nit ñi ne amin amin imam waay waay imam wax na dëgg de moo tax nañ leen góorgóorlu nañ leen góorgóorlu nekk ay jaam comme ay jaam lañ nañ leen góorgóorlu jaam googu ñu dëggal ko abduk wala yonent bi lu mu wax tur boobu laa gën a bëgg mooy jaam tur boobu laa gën a bëgg moo tax yàlla bi muy tagg yonent bi tur boobu la ko wooyee wa annahu lamma qaama abdullah tabaraka alladi nazala alfurqana ala wa innahu lamma qaama subhana alladi asra bi abdihi abd innama ana abd faqulu abdullahi wa rasul man jaam la yonente bi tur boobu la gën a bëgg wala bi gaa yi ñëwee di ko jay naan ko anta sayiduna wa ibnu sayiduna la tatruni bu leen ma jay kama atrati nasara ibnu maryam innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluh man jaam laa wax leen ma jaam kon nañ leen nekk ay jaam gars yi buñ deewee tur boobu lan nuy wax de jaam imaam lan la ci teg mu ne allahuma yow yàlla innahu waa ji tëdd fii kaana nekkoon na yashhadu an la ilaha illa allah di seede ne yàlla kenn la wa yashhadu anna muhammadan rasulullah da doon seede ne muhammad yonent la yàlla ko yónni imaam yemul foofu de mu ne allahuma yow yàlla innahu waa ji tëdd fii in kaana muhsinan bu dee da doon def lu baax wala da lay accuser waa ji ñemewul wax yàlla kii da daan naafila guddi kii da doon woor kii imaam la woon kii da doon bayaan ci jàkka ji kii da doon def ay conférence kii kii kii kenn ñemewul wax loolu in allahuma yow yàlla ñu naa mu ne in kaana muhsinan bu dee ah xaw ma ci dara wóoruma de ndax dama ko doon gis rek mu sol imaam màkk wóoruma gis ko rek mu toog dara leeruma ci mbiram in kaana muhsinan bu dee da doon def lu baax ah waay yow yàlla fa zitu fi ihsaani ah waay dollil ko waay way may may ko lu baax wa in kaana musian bu dee bandi la woon saay saay la ba nga yàkkamti ko fa tajaawaz anhu baal ko ah ñun nag soo gisee ñu ñëw di ci jàpp di jullee tiyaaba rek lañ yaakaar laa taftinna baado bul ñu mere de dañoo ñëw bëgg tiyaaba wala taftinna la tahrimna ajara bul ñu xañ tiyaaba yi wala taftinna baada su fekkee da nga koo mere nag bul ñu ci teg bul ñu ci teg de imaam loolu lay wax de wala loolu mooy ñaan bi loolu ngeen jàng bu ngeen jàngu loolu wax leen ma jànguñu ko loolu mooy ñaan bi la tahrimna ajara wala taftinna baada bul ñu xañ tiyaaba yi waaye bul ñu bul ñu mbugal ginnaawam de ilimaan daa di kàbbar kàbbar bu mujj daa di noppi kàbbar bu mujj amul ñaan mu ne ah kàbbar bu mujj amul ñaan mu ne asalaamualeykum day joor asalaamualeykum càmmoñ ñu daal di lay yenu waaw akbar fu ñu jëm sa kër fu ñu jëm terrain ba fu ñu jëm fi nga doon liggéeyee gars yi fu ñu jëm biñ ko yenoo fu ñu jëm bu dee ku baax la ndeysaan bi gars yi ne cas kees gi mu ne qaddimu nii qaddimu nii waay yóbbu leen ma yóbbu leen ma waay bu dee saay saay la mu ne yaa way la ta an naa tasa bu ne wooy fu ngeen ma jëme àdduna commencé wax ak moom àdduna mooy wax ak waa ji balaa muy dem yabnu adam xarajta min aturaab wa utta min aturaab wa xarajta min aturaabi bila zamb wa utta min aturaab wa kulluka zunub te yow doomu adama li ngay ñëw ci àdduna ci suuf nga génn ñëw ci àdduna waaye bi ngay jóge ci àdduna di ñëw ci suuf amoo woon benn bàkkaar tey nag yaa ngi delluwaat ci biir suuf yaa ngi fees dell ak bàkkaar ndeysaan ñu daal di koy yëkkati ñu romb buntu kër gi moom néew bi mu ne yaa awlaadi ey yéen samay doom yaa abnaa yi yaa man axastum amwaalana wa labistum siyaabana wa makastum diyaarana laa talabanna bikum dunya kama laibat bina ey yéen samay doom ey yéen samay soxna ee yéen ñi nar a jëlaat sama yére ee yéen ñi nar a jëlaat sama kër yéen ñi nar a doon naat sama alal bu leen aduna jeeg comme ni ma aduna fawee tey bu leen aduna fawee de man de aduna fawee na ma maa ngi dem waaye boobu gars yi duñ ko yëg gars yi ñu ngi daral di jënd nag ñee dem nañ marché nduggi ñee ngay dank caakiri nàkk yi ngandal ko ngandal ko na rëy lekk rek Sénégal lekk rek xamuñu fu ñu war a lekk ak fu ñu warta lekk lépp lekk la waaw xolal li gën a garaaw ci dee balaa ñuy am lu leen neex jënd nag gandu nag duñ jënd sax nag bu ndaw saa yoo gisee nag bu yeewu ci koñ bu laaj dañuy nos suba dafa am ku dee sunu benn yaay tukulóor la mu ne bu gaa yi bon mu ni dee rek ne oo kamaayi naggal waraama ngare ha ñaame mu ne loolu la ñuy way xam nga woy boobu dafa am benn woy bu muy nuróol woy boobu dafa am benn woy bu muy nuróol moom moom moom noonu la ko déggee quoi noonu la ko woyee mu ne kii day dee na jënd nañu nag ñëw leen ñu lekk te fële la gën a neexee nag ci tukulóor woon déedéet duma ko woyaat de ko woyaat de ndeysaan gaa yi jënd ngandu nag ngandu nag la ñuy jënd ndeysaan te bi nga feebaree ndeysaan kenn jaaru fi kenn jaaru fi kenn seet si la ne deene rek ñu ñëw commencé cotiser ne diw ni la ñeenti saako jepp ne deux cent mille kii ne trois cent mille kenn sax day yoon non garaawul man maay jënd nag bi quoi amul problème quoi amul problème maay jënd nag bi mënoo woon ñëw jënd ordonnance yi kaay leen ñu jaamu yàlla gars yi ñu yemale ko foofu insha allah borom bi nee na wayn tusibhum bu leen dalee ñoom gaa yooyu xasanatan lu baax yaqulu nañu ne haasihi lii min indillah ci yàlla la bàyyeekoo wa in tusibhum bu leen dalee sayyi'atun lu ñaaw yaqulu nañu ne haasihi lii min indika yow Muhammad bi nga commencé naan yàlla nee na ba léegi yow yaa ñu indil problème yow bi nga la yàlla yónnee la dëkk bi commencé am problème gaa yi lu baax fan la bàyyeekoo ci yàlla safaan tamit fan la bàyyeekoo amul luy bàyyeekoo ci nit nit mënul dara yàlla rek a mën ku mën rek yàlla moo la mën loo ku mën yàlla moo la mën loo ku tële yàlla moo la xañ ku am yàlla moo la may ku ñàkk yàlla moo la xañ moo tax mu ne wa in tusibhum bu leen dalee bu leen laalee bu ñu amee xasanatan xasanatun lu baax suñ ne lu baax nag bu ko kenn tënk rek ci xaalis bu ko kenn tënk ci oto bu ko kenn tën- tënk ci kër suñ ne lu baax wér gu yaram sax ci la bokk lépp ci la bokk lu baax mooy xasana doom yu baax sax ci lañ bokk jabar yu baax ci la bokk lépp nawet tóol xasana mooy lu baax su leen lu baax dalee ñoom ñëpp ñu jóg taxaw yaqulu ñu ne haasihi lii lu baax lii dal nu min indillah lii la ci yàlla la bàyyee ko yàlla nu ko may waaye wa in tusibhum comme amuñu pas-pas seen ngëm wérul baaxul wa in tusibhum bu leen dalee sayyi'atun lu ñaaw allahu akbar gis nga sayyi'a safaanu mooy safaanu xasana lépp lu ñaaw feebar ñàkk sonn tële bu leen dalee au lieu ñu delloo ko ci yàlla yaqulu ñu ne haasihi lii min indika yow ci muhammad yow lii ci yow la bàyyeekoo ndax seetlu nañ yow kër gi bi nga commencé di fi julli ba léegi kër gi dafa deltu ginnaaw seetlu nañ léeg-léeg nga gis benn jëkkër bu ne jabaram xam nga am na lu ma seetlu ne nijaay loo seetlu mu ne bi nga commencé di muuru ba léegi damaa umu amatuma dara ah bon kon um kon muuraay moo lay um bu dee yenn paa yi ñu ne seen doom yi bi ngeen commencé di julli ci kër gi ba léegi ak di fi teg seen alxuraan yii la kër gi commencé am problème ah kon kër suñ fay julli dafa teg alxuraan problème dafay am ah yonent bi de waxul loolu yonente noon nawwiru manazilakum bi salaati wa qiraati alquran leeral leen seen kër yi ci julli ak jàng alquran jàng ngeen sax yonent bi ne suratul baqara kër gi ñu koy jàng seytaane dafa dugg yonent bi nee na laa tajalu buyutakum maqabir bu leen def seen kër yi bàmmeel inna shaytaanu yanfiru min bayti allazi tuqra fihi suratul baqar seytaane day daw kër goo xam ne dañ néeg boo xam ne dañ fay jàng suratul baqar kon lu bon safaan feebar ñàkk ku mu mën a dal xamal na ci yàlla la bàyyeekoo yàlla daf la koy teg pour nga mën a delluwaat gis nga am na ñoo xam ne su leen yàlla bàyyoon ñuy am nekk ci lix du ñu mës a julli yenn saa yi nga gis benn waaye boo xam ne toog na ab julliwul mu xëy rek bopp bi metti ñu yenu yóbbu hôpital mu dem ba tiit xam ne dafa war a dee mu tane rek fii booy man kay moo ñaanal ma rek caa bu ma wéree buy tiitoon naa ma ne ah waaw léegi yow bi nga demee bay waaja dee nga tiit gis nga kooku di la wax loolu au lieu bu wéree mu mu dellu siwaat au lieu bu wéree mu dellu siwaat day wér ñetti fan lay dem jàkk ah ñetti fan la waa ji wër rek delluwaat xel yàlla dimbali kon dañu xam ne lu baax ak lu bon yëpp fenn lay jóge ci borom bi tabaraka wa taala waaye bu ci nekk mbokk yi bu ci nekk nattu la bu ci nekk nattu la de lu baax soo ko amee nattu la lu bon bu la dalee nattu la alxuraan moo ko wax fa ama al insan ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama li yàlla lan la wax nattu ida mabtalaahu bu fekkee keneen ki la it nattu la ñaar yëpp nattu la am am nattu la ñàkk nattu la feebar nattu la wér nattu la kon bu ci mën a ñëw fexeel yàlla la ko teg delluwaatal ci sa boroom boo amee santal yàlla mu barkeel ko boo muñee boo ñàkkee muñal te ñaan yàlla mu barkeelal la borom bi nee na na ngeen yëg ne xul na nga leen wax yow muhammad kullun benn bu ci mën a ne ban lu baax li walla lu bon li safaan bi min indillahi ci yàlla la bàyyeekoo waaw ñaar yëpp ci yàlla la bàyyeekoo nattu lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy ci yàlla la bàyyeekoo lu mu tuuti tuuti tuuti ci yàlla la bàyyeekoo amul lenn luy bàyyeekoo ci nit amul lenn lu nit mën tukulóor tukulóor yi nee nañ wala xaalpulaar yi nee nañ dudd korkor so waawi hunde yow tuuti réedu mum ah waaw waaw ki naan maa mën kaay leen ma sang leen kaay leen ma yokk seen wërsëg kaay leen ma yokkal leen seen awra kaay leen ma kaay leen kaay leen kaay leen na ko defal boppam jaru muy publicité ku mën du publicité ku mën jaru ngay publicité soo mënee rek nit ñi dañ xam ne mën nga dinañ ñëw ci yow waaye da ngay gis fii nit ñuy naxee fii da ngay gis ku ne damay guddal fan guddalal sa fan dana yokk wërsëg yow kay te ki nga yokk wërsëgam. dina lay fay yow tee ngaa yokk sa wërsëg bañ laa fay. soo ñëwee mu ne la cent mille nga nekk fu naan noo wàññi dafa cher mu naan waaw kon bàyyi ma tegg dix mille yi. ba pare mu ne yow day yokk sa wërsëg ah leen de war ngeen ko moom su waxoon damay yokk sama wërsëg man moom ngeen gëm ko ndax moom wërsëg nga yokk. trois jours ngeen gis léegi mu am air plus 4 soo nee kii gis ku mu yor benn 4 4 bu lay romb wala benn 8 8. wala kon moom yokku na boppam nanu dem ci yàlla yàllaa yor mbir yi lu baax ci loxo yàlla la nekk safaanit ci loxo yàlla la nekk amul lenn lu nekk ci yonent loxo yonent bi amul lenn lu ci yonent bi di wàcce amul lenn lu ci yonent bi mën xul waxal kullun benn bu ci nekk min indillahi ci yàlla la bàyyeekoo borom bi ne fama li haulaai l qawm laa yakaaduuna yafqahuuna hadisa waaw nit ñi moom lan moo leen dal ba duñu dégg wax waaw nit ñi ma lan moo leen dal ba duñu leen waaree duñu waaru wala soo ba léegi dee la ñuy wax kenn jooyu fi dañuy ree rek kenn bëtam xonqul kenn tristul kenn ñëkkul ku nekk mu ngi xaxataay rek ah fa maa li haulaai l qawm lan moo dal nit ñi xam na la moo dal nit ñi tey dañoo laaj ibrahim bun adham rahimahullah waa iraq ne ko ibrahim ñun de dañoo waaru mu ne loolu moo leen waar ñu ne borom xam-xam yi dañuy wax ak nit ñi ba sonn nit ñi duñ dégg mu ne waa dafa am lu xew ñu ne lan moo xew mu ne bu njëkk ba li tax borom xam-xam yi bu ñu waxee rek nit ñi dégg dem jëfe mu ne boobu nit ñi dañuy nelaw borom xam-xam yi di leen yee boobu nit ñi dañuy nelaw borom xam-xam yi di leen yee mbokk yi kuy nelaw kan moo ko mën a yee ku yeewu mu ne tey nag borom xam-xam yi dañuy nelaw nit ñi dee ndax kuy nelaw mën naa yeeku dee loolu moo tax waxtaan yi tafsir yi waaraate yi bayaan yi julli yi ah dootoo gis dootoo ci gis toroxlu dootoo ci gis jooy jooy jeex na rongo ñi fer nañ yàlla mënatuluñ dara léegi kay lan moo tax nit jooy waaw booy sound bi laa dégg gis nga booy bi ma déggee sound bi laa la wax booy sama rongoñ yi keneen ki ñëw ne si sëñ bi dana tëll rek ma xam ndeysaan lan la yàlla waxoon ci alquran ala bi zikrillah tatmainnul qulub ala bi zikrillahi tatmainnul qulub lan la yàlla waxoon ci alquran wa iza tuliyat alayhim ayatuna waaw innamal mu'minun ñi gëm yàlla dëgg-dëgg yàlla nee na mooy ñi nga xam ne buñ leen jàngale alquran wajilat qulubuhum seen xol yi tooy ndeysaan yàlla nee na ci quran julli di dëgg-dëgg ndeysaan boo leen seenoon ñu leen di wax alquran da ngay gis seen bëj yi di sotteeku rongoñ waaye ñun tey loolu jeex na moo tax yàlla di ñu di ñu di ñu duut baaraam ne ñu fama li haulaai alqawm lan moo dal nit ñi yàllaay wax de du man wala loolu so seen nekkul ci seen téere yi fama li haulaai alqawm lan ñoo dal nit ñi laa yakaaduuna xawuñu yafqahuna ñuy comprendre hadisan waxtaan du ñu dégg waxtaanu yàlla du ñu dégg alquran du ñu dégg hadis da ngeen di jàng ñu ne siratu salatu salafu saaleh am na ci ñoo xam ne ba ñu déggee alxuraan alxuraan dafa taasir ci ñoom ñu pare ba ci jinne yi jinne yi ñoo dégg alxuraan daal di jóg qul uhiya ilayya annahu stamaa nafarun fa qaalu inna samicna qur'anan ajaba yahdi ila rushdi walan nushrika bi rabbina allahu akbar wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa sahibatan alxuraan lan dégg rek ñoom jinne yi ñu normal inna samina ñun de dégg nañ alxuraan allahu akbar waaye xoolal ñun dañuy dégg alxuraan mel ni ku dégg ay bërigo yu yuñ teg ci mbartal sama benn mbokk dafa amoon maçon buy liggéey seen kër xale bu jigéen maçon bi di liggéey seen kër maçon bi wàcc war a jàpp rek daal di koy jox benn téere ne ko soxna si mu ne mu ne téel ma téere bi soxna si dindi loxo bi rek mu ne ko mbaa jàpp nga soxna si ne ko déedéet mu ne woo déedéet kon bàyyi ko soxna si ne ko lii du alxuraan di mu ne ko moo alxuraan di ràkkal diw gaa ngi nii alquran rakkal la diw gaa ngi nii wan naa kii barki démb téere bi ma leen doon wax dama koy fàtte chaque jour wallahi alazim Sénégal bu gëmuñu alquran bëgguñu ko ñu wax rek seen wax bari xoolal suñ demee ba gëm ne alquran rakkal la ñi naan màkka jarta dem loolu mooy wan ne ñii gëmuñu yàlla dañuy wax rek wax jee bari rek gis nga fii wax jee bari waaye li ñuy wax bis bu nekk moom la ñuy waxaat ma ne mbokki jullit yi bu leen coow li yóbbaale bu leen xumb xumb mbedd mi yóbbaale gaañi wallahi ku dugg bàmmeel boo jaamoon yàlla di nga rëccu bu leen yaakaar ne am na kenn ku nekk fii ci Sénégal di dund wala ku génn àdduna ku dëkk Sénégal ku nekk alaaxira ku fa mun dara bu kenn ci ñun fas lool ku ko fas rek sa alaaxira day yàqu amul kenn ku mën a ñëw ci li yàlla bëgg li yàlla dogal ne mooy am nga ñëw waññaar loxo yàlla ne loolu du am yooyu bu leen ko gëm de ku gëm daal kuy gëm bu yeboo nga gëm ne jullit dafa war a jaamu yàlla jullit dafa war a jëfi ndigal bàyyi tere waaye nekk fi ñu lay gëmloo jarul julli jarul woor ak alxuraan rakkalaak màkka jarta dem ah ñun de ku àndal ku ñu àndal lu la neex laaj gaa yi di tëgg di fecc ko àndal ki ñu àndal lu la neex def ñu naan saay di tëgg yooyu yomb na de loolu xale yi naan loolu dafa ndoxe ki ngeen àndal mooy kan ah ba ba ba boo àndee ak moom lu la neex laaj lu la neex def saxaaba yi sax àndoon ak yonent bi te lu leen neex duñ def lu leen neex duñ laaj saxaaba bi laaj na yonent bi ne ko asaluka murafaqatuka fil janna mu ne ko munuma loolu man de àjjana laa lay laaj mu ne ko munumaa dugal kenn aljanna yonent bi wax na fatima doomam ya fatimatu bintu muhammadin salni min mali ma shit fa inni la ugni anki min allahi shay fatima laa wax de fatima siyaay dañ naan fatima siyaay ñooy wax loolu de gëmuma ko nag waaye dama leen koy nettali rek pour wan leen kan mooy fatima nee nañ yonent bi mu demee leelatul isra wal mi'raj benn pom la ko jibril joxoon mu lekk bi mu ñëwee pom boobu moo formé Fatima kon kooku du ko ndaw de yonent bi daan toog Fatima ne tëll mu jël ko teg ko ci poojam ne kii daggit la ci man ku ko kontaan loo kontaan loo ma ku ko merloo merloo ma kooku la yonent bi woo ne ko sama alal laaj ma lu la neex ma jox la waaye boo jaamul yàlla ëllëg yowmal xiyaam mënalu ma la dara safiya doomam saxaaba yi bu waaw yonent bi lu mu mënul àllaaxira yaakaar ngeen ne fii am na ku ko fi mën ah nañ bàyyi coow li nañ dem jaamu ji yàlla coow lee bari rek ñuy takk suñuy rajo du yuuxu rek yenn saa yi nga nekk sa biir kër dégg benn waaye bu yor rajo di wax loo xam ne bu ci weñ tegee day dee iblis sax bu ko déggee dinaan ah lii de man ñemewuma ko iblis bi mu déggee firawna ne ana rabbukumul aala iblis dafa jóge ba ci kaw daal ni lee man kay ndeke am na ku ma tane est ce que xam ngeen iblis li muy kàccoor kàccoor yëpp musu wax ma ne maa yàlla ah iblis ba mu gisee malaaka yi ñuy xeex si ànd ak saxaaba yi dafa daw daan ne inni raaytu maa laa taraw na inni axaafa allah rabbal alamin iblis dafa daw ñii daan ne gis naa lu ngeen gisul man damaa ragal yàlla de daa daw moo tax iblis bu mu déggee firaaw ne ne maay yàlla iblis dafa jóge bi ci kaw daal di ñëw fëgg bunt bi firaaw ne ne kokkal la mu ne ko yaa mën a fen nga ne yaay yàlla ba dem na fëgg nga naan kokkal la daa kàccoore yow firaaw na allahu akbar allahu akbar waaye fii ngay dégg ab sénégalais bu ne maay yàlla
wala ku ma gis taxe wala diw yàlla la wala ñun yàlla lañ waxuma sax léegi dafa doon sax ba am taarix bu tudd yàlla yàlla ñi ñooy yàlla yàlla yi allahu akbar ñenn ñi ut taarix boo xam ne seen sant mooy yàlla sant bi yàlla la laa ilaaha
sant yàlla mel na yàlla moo leen jur allahu akbar Sénégal lu la neex nga def laa ilaaha lu la neex rek nga wax lu la neex nga def amul dalil amul dara waaw ku bëgg a gëm na gëmul ku gëmul sa affaire la ñun lii lañ gëm ah suñu yoon ah waaw loolu rek ndeysaan gaa yëpp ñëw nag li ci metti mooy sabaab yi ndaw yi ñu nar a yóbbu safara ëllëg yowmal xiyaamati ndaw yi yiñ nar a lakk loolu rek moo ci metti yàlla na yàlla jubal mbokk yi kon mbir yaa ngoog nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax lan moo ci tegu
maa asaabaka min xasanatin fa min allah
mu ne borom bi tabaraka wa taala nee na maa asaabaka lépp lu la dal min xasana ci yiw ah fa min allah jàppal na ci yàlla la bàyyee ko waaye wa ma asabaka lépp loola dal min sayya xoolal yàlla mu ne fa min nafsika bu dee lu baax day ci yàlla la bàyyee ko bu dee lu bon yàlla mu ne yow la yaa ko def ndax bi ma rëddee yoon bi ne jaar leen nii soo jaaroon ci yoon bi lii dal la du la dal lan moo tax mu dal la sa dëgër bopp ak ñàkk ak ñàkk
topp yoddu fa topp fi ma rëdd loolu mooy li la indi lii allahu akbar maa asaabaka lépp lu la dal min xasana ci lu baax alxasana maa sarra mooy lépp loo xam ne dalay kontaan loo yarhamukallah wa sayya lu bon mooy maa dara lépp luy lor su fekkee lu baax la mooy lépp luy kontaan loo nit lu lay bégloo luy tax nga am gërëmal yàlla waaye bu dee lu bon mooy lépp loo xam ne naqar la lay indil coono jafe-jafe mooy sayya mooy maa dara lépp lu lay lor borom bi nag nee na lépp loo xam ne lu baax la na ngeen xam ne ci man la bàyyeekoo waaye wa ma asaabaka lépp loo dal min sayyi'a ci lu ñaaw bul dem wuri kenn fa min nafsika sa bopp la corrigé waatal sa bopp xoolaatal sa bopp rek dugal sa néeg waxal man a kan waxal maay kan xoolaatal sa seetu soo tilimee nooy def sangu bu yére yi tilimee noo koy def fóot bu dàll yi tilimee nooy def jeex na kon yaram kon bàkkaar yi tamit bakkan bi bu tilimee dama nga sangi ko rek nga xam ne yow la du keneen waaw yenn saa yi borom xam-xam yu nga xam ne dañoo yegg dañoo yegg waaw gaa yi gaa yi neen dañuy yegg diw dafa egg fan la egg fu mu demoon waaw ñoom diw dañoo yegg mus naa am ay jarbaat est-ce que ñëwuñu tafsir sax ma toxu sunu kër rek dama toxu dem dëkki gunaas ndeke kër gi yàqu ma sama ginnaaw man guddi ba nekk guddi ba laa fay jaar nuyu waa kër gi sama papa ak sama yaay dem ñibbi sama kër ndeke sama xale yi sama jarbaat yi ma fa bàyyi woon sa waay dem nañ nekk ay yàlla yàlla ñett kër gi ma demoon am problème ñu toj ko mooy pala jaxaay ma ñibbi siwaat sunu kër ah, ñetti fan rek ñuy añ ndeke dañoo amoon gan gan gi ne ma ah yow sa kër gi changé na de ma ne ko kër gan mu ne ma kër gii nga dëkk ma ne ko lu fi changé mu ne ma am na lu fi xew sa ginnaaw de ma ne ko loolan la mu ne ma ñetti ñi toog ma ne ko ñii nii ma wax seen tur mu ne waaw ma ne ko lan la lu leen dal mu ne ma nañu wax nga dégg te kenn ki ne ma nijaay boo rëyul nga ñëw ñu won la yàlla boo rëyul nga ñëw ñu won la yàlla ma ne ah dégguma li nga wax de mu ne ñu ne boo rëyul nga ñëw ñu won la yàlla ma ne ah yéen di ngeen di gis yàlla ñu ne waaw mu ne waaw mais ah man de leen na ma ci jaaxal quoi yonent bi de moo leen gën te am na riwaaya yu ñëw ne gisul yàlla xaw ma yéen nag naka ngeen def rek keneen ki ne de yonent bi gënuñu ah dafa am fu mu ñu gën am fu ñu ko gën ma ne ah xam keneen ki nag day dër xam nga ñaar ñi wax nañ keneen ki ne eh, eh, wax nañ dëgg de ma ne kon kon nag confirmé na quoi ñeen ñett ñëpp wax ngeen mu ne kon leer na ñu ne waaw mu ne waa jóg leen ñu fekk ñu ngi añ de ñu ngi teg bool ma ne waa jóg leen ñu ne fu ñu jëm ma ne añ bi kay du ngeen ci lekk waaye yàlla ngeen añ bi moom du yegg kudd yi ngeen ci njëkk am kay moom moo ma metti yi rëcc waaye yeneen yi moom du yegg jóg leen jóg leen jóg leen ñu def caaxaan ba dugg sama ron rek génne jaasi rek xale yi yuuxu sama yaay ne ma lan la ma ne ko ah ñii nee ne dañoo gën yonent bi mu ne lan ma ne ko ñu ngi nii dañoo ko wax sama yaay ne lu ngeen wax ñu ne "Eh, dëgg la kay ndeysaan ndeysaan après ñu génn buntu kër gi nag ñoom ñu dem toog ci buntu kër gi sama yaay ne ma comme samay jarbaat lañ sama yaay ne ma xam nga yow barki démb nga ñibbisi ci kër gi boo fi defee nii dañ naan di nga amul foo nekk nga ñëw nga ñëw di turbale kër gi la di ma di ma waar quoi ni daf may wàññi ma ne ko yow déggoo ñii li ñu wax mu ne ma non mais daal lii du solution ma ne ko ñii yàqu nañ ñii dootuñ baax ñii su nit demee ba maa gën yonent bi wala yonent bi gënuma wala dafa am fu mu ma gën am fu ma ko gën ah su nit yeggee foofu kooku alku na loolu moo lay won ne lii pas-pas yi pas-pas yi billaahi ku ci dund boo dee da nga dem safara li nit ñi ñemewuloon nag démb lañ gëmloo tey sunu ndaw yi doom yi jullit yëpp ci lañ leen dugal du ñu julli duñ woot ay yàlla fii ay sa- caaxaan yoo xam ne dara wiru ci ñu jël ndaw yëpp dugal leen ci doomi jàmbur dañ saa ngi gis xale bu xam ne doon jàng dem ba université ñu ne ko daraax dugal ko ci loo xam ne ndeyam ak baayam fournir nañ seen adduna yëpp pour kii mu mujj nekk benn dof boo xam ne te ay nit ñoo koy def te amul fenn foo koy laaj détruire doomu jàmbur yenn saa ngi gis xale bu jigéen boo xam ne day dem ziyaara ji benn sëriñ rek sëriñ bi takk boole naa la ci soxna yi toogal loolu dafa yomb di boole naa la ci soxna yi am nga jëkkër déedéet ay déedéet sëriñ boole naa la ci yor ay camion jabar yorul jeex ku rafet rek mu ne boole naa la ci duñ jël ñu ñaaw mukk ah seet leen li ma wax ñu rafet rek ay diriyànki loolu musiba la nañ leen dellu si ci dëgg nañ leen xam ne alxuraan mooy dëgg yàlla nee na yonent bi nee na jaamu leen yàlla bàyyi leen caaxaan loolu de mooy dëgg gi mbokk yi waaw loolu de lan leen di woo su fekkee daal ñun am na lenn lu ñu leen di woo mooy dem leen ngeen jaamu ji yàlla fonk seeni ndey ak seeni baay teral leen fonk leen seen diine màtt leen ko ak seeni dëgëj topp gëm leen seen boroom roy leen seeni yonent topp leen seeni ndey ak seeni baay teral leen nekk am na lu ñu leen di wax loolu kese lañ leen di wax woowu ñu leen ci leneen wa ma ma asaabak lépp lu la dal min xasanatin ci lu rafet fa min allah wa ma asaabaka lépp lu la dal min sayyiatin ci lu ñaaw fa min nafsika yow la sa bopp xoolaatal sa bopp wa arsalnaaka yónni naa la yow yonent bi maa la yónni man sa borom de linnaasi ci ñëpp rasulan ngay ndaw lenn ma leen di laaj wa arsalnaaka linnaasi rasulan yónni naa la ci nit ñëpp ngay yonent ñun ci lañ bokk wala bokkuñ ci wa arsalnaaka yónni naa la alkaaf ku moom kaaf bi
Kaafa Muhammad wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas yónni naa la ci nit ñëpp ñu weex ñeeg ñu ñuul ñi ñu xonq ñeeg ñu zone ñi ku des boo waxee ñu naan déedéet yàlla daa yónni woon yonent bi ci arab yi ñun duñu ay arab waaw lu ngeen di arab arab lu nii ñu waxee rek ngeen di arab mus naa fekke benn jàkkade benn waay ñëw rek ndeysaan bu bëgg a tiyaaba timis di waaj a jot rek mu jël micro bi allahu akbar allahu akbar nodd nodd nodd gu normal mu pare teg rek imam bi ne bilal bilal bilal eh, noddal yow ñun du ñooy arab noddal waa ji jël ala kan xamul lu mu noonu ñun du ñu araba imam bi jàpp waa ji naan ko ñun du ñu ay arab kan nekk fii di ah ñun dëkk ñu màkk waaw waaw subhanallah yàlla nee na wax yow yonent maa la yónni ci nit ñëpp te loolu bëgguma ci benn seede yàlla nee na bi ma yónnee yonent bi ci nit ñi bëgguma ci benn seede du ci ñuul ñu weex ñi du ci nit ñi du ci malaaka yi du ci jinne yi man yàlla maa doy sama bopp seede wa kafa billahi shahida man yàlla doy naa seede muhammad maa ko yónni doy na kaamil yaa ngeen tiim xool leen loolu du du loolu Kaafa billahi shahid wa kafa billahi shahida man yàlla doy naa ci seede maa yónni muhammad ñun fii yonent yi ñu am fii ci Sénégal ku leen yónni ana ana ku ko seede loolu mooy dar sa tey mbokk yi yal nañu yàlla wul ñu dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh